bismillahi rahman rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi tey sénégalais de l'extérieur rek noo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax dooree émission bi nanu ko baaxooy defee ñu ngeen nuyu bu baax a baax sunu président directeur général ak mbooleem directeur ci biir kër gi ci kaw nuyoo boobu itam dinañ ci boole képp koo xam ne rek yàlla dogal na dogal na ngay xëy ci biir kër ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax wéyal nuyoo wetu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada noo ngi leen di sopp bu baax a baax di leen nuyu di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm defal ko njaboot gi yépp macha allah yàggal seen taxawaay ci lu baax macha allah ci lu jëriñe ci biir dëkk te ci ngeen ne yàlla na yàgg yàlla yàggal taxawaay yi ba tey ñu daal dee seeti ñi nga xam ne wax dëgg yàlla bu nu waxee émission wareef sunu xel dafay dem saa su ne ci ñoom maanaam ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw noo ngi leen di massalu bu baax a baax di leen wax rekk na nu muñ ndax àdduna moo ni mel amaan na ay jamono yoo xam ne ku leen yeewoon xamal leen ne lu ni mel dina leen dal du nu ko gëm waaye lu ngeen xam ci nattu xanaa muñ te tàllal loxo suñu borom ñaan ko mu soppi jamono yàlla na soppi jamono ba ngeen gaaw seen réinsertion yàlla yombal ko ci société bi ba tey dañuy daal di dugg itam ci ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi clinique ak dispensaire noo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla tawféex bu yokku incha allah yàlla wéral leen jox leen des jour meilleurs yaa rabbi mën na ko ci barke sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na leen ko defal ba ngeen gaaw dellu seen ay activité ñi leen gunge yi tamit mention spéciale à eux dañu leen di gërëm bu baax ndax nee naa nit bu dee dox soxlaam sax dafay soxla ku ko gunge sàkkatuma ki tëdd feebar mënalul boppam dara yàlla mooy aji faye yàlla na leen fayal boppam ñu daal di dugg tam ba tey ci biir kër yi massalu képp koo xam ne tiis dafa dal sa kaw noo ngi lay massalu bu baax a baax a baax di la wax na nga yokk muñ ndax yàlla mooy tege nattu te bu ko tegee itam li ñuy li ñu yombal sunu nekkin mooy nu xam ne moom moo ko def waaye ñu tàllalaat loxo ñaan ko tiis la ak naqar ci barke sang bu tedd bi ba tey ñu ngi ziar suñu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al suñu cofeel ci moom dara du ko dindi incha allah yal na yàlla yokk leeram noonee la ñuy ñaanale itam képp koo xam ne yaa ngi toog ci kaw xilaafa xalifa généraux yi ñu ngi leen di nuyu bu baax wax dëgg yàlla bu nu dee liim du nu fàtte du nu fàtte ñépp la nu yemale nu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu ndey itam ndax ajaratu mami liggéeyaan mu ngee ñëw léegi te moom baaxoo na bu dikkee dafay nuyu ñoom yaajoor dafay nuyu mère Assou Seck dafay nuyu Assou Jara dafay nuyu wax dëgg yàlla mendoo yi bawul kenn bawul kenn bawul kenn kon bokk yéen itam ca ngeen bokk moo xam fu ngeen nuyu seetaanee nu ngi leen di nuyu tey dellu si nag ci sunu thème thème bi mooy wàlli mariage mariage nag bu nu ko waxee dialogue dafay taxaw compréhension taxaw tolérance taxaw lépp loo xam ne sunu boroom bëgg na ko rek dafay taxaw te yooyu nag ñu tudd léegi moo war a am ci diggante ñaari nit waxuma sax ñaari way dencante waaye ci diggante frère et diggante nit ak collègue am diggante daal la koy defar bokk na ci li gën a rafet nu koy xool te ku ci nekk ci ñun bu wéetee xam ne luy rafetal diggante ndoy baan ñu dellu si waat ci mariage yi mhm. ndax lu ñu ci wax rek doyul wax saa boo toogee def penc di wax mhm. am na koo xam ne defar nga ko mhm. bu dikkee ci yow wax la ko defar nga ko bu dikkul itam defar nga ko bisimila waaye day bu ma doon verre di tax yaa may sol <laughs> raf rafle jigul ndaanaan <laughs> macha allah jaajëf bisimila ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar mami di ziar ñi seetaan ñëpp di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te moo taaliba yëpp di ziar waa Pire sañu xoor sëñ Moustapha Cissé ñu ngi koy ziar bu baax sunu xalif boobu euh, moom parent Jibi Diagne mm. monsieur le maire euh, Serigne Boub ak nga xam ne moo di Baye Bado Dieng mm-hmm. euh, Serigne Mbaye ak madame Mbaye ñoom ñi ngi fii ci cité kër góor gi di ay doomi Pire mm-hmm. di leen ñaanal jàmm bu baax a baax sunu imam ba sëñ Moustapha Ka mm. mais tey dem dañ fa am dëj dañ fa am dëj boo xam ne sama maam boobu Maw Maodo Baan bi gaañu woon waaw soxnaam soosu di ñaareel ba di Khady Gueye ñu naan waaw lañ ko ñu bari xamee mm-hmm. muy yaayu docteur Omar Baan dentiste ak ak ñoom Abdou Baan ak ñoom seen moom mm. moo gaañu bi ci guddi moo wàññeeku xam naa ni tey jii lañ koy jébbal boromam xam naa ni dëj boobu lañ am ca pire ñu ñaan rek yàlla na ko yàlla xaare àjjana suñu biir kër la daal la waaw suñu biir kër la waajur euh, borom këram sama mooy sama maam bi gaañu woon temps yële passé ah, xel a ngi ci ba tey baan yëf yi ñu ñoo ko bokk c'est ça ñuy ziar ñëpp ñu ngi jaale waa pire yëpp voilà kilifa yëpp ñu ngi leen di ziar baax a baax ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew comme ni nga ko waxee rek thème bi moom thème bu riche la soo ko doon def un an du doy parce que loolu mooy dund loolu mooy yëfu doomu aadama doomu aadama sëy dëgg waaw parce que képp ku juddu rek ñaan nga yàlla màgg ba sëy bu baax muy góor muy jigéen. dëgg la te sëy ba gënal mooy sëy ba raf ba rafet jëkkër jëggan moom nga moo moo moo moo la gënal. Mhm. jabar jëggan moo la gënal. Mhm. Euh, goro yee gën moo la gënal ak njëkk yee gën. waaye yàlla ku ci nekk dafa am lu mu la séddee. Mhm. la la séddee moo xam mën nga koo muñ wala mënu koo muñ. lu neex la wala lu naqare la yàlla ku ci nekk am na lu mu la séddee. mais ginnaaw ñun ay sénégalais lañ te ñun dañ ñoo mooñaale ci rafetal. rafetal toujours nañ koy rafetal. nu ko góor ki di rafetal ku jigéen ki di rafetal. am tuuti euh, esprit de dépassement ma du du heure bu ñu la tooñee rek nga wane sa bopp mhm. ndaxte chaque jour yàlla tooñ ñu ñu euh, tooñ yàlla chaque jour ma ma jéggul sax chaque jour ñu tooñ chaque jour ñu suñu borom di ñuy jéggal mhm. yow leer na leen yow yaa ngi nii di def te su la yàlla amul su su la su la yàlla toppoon kon heure bi kenn waxatu ko mhm. kon boog su la sa soxna tooñee mhm. mën nga koo jéggal su la sa borom kër tooñee mën nga koo jéggal mhm. te nga bañ cee dëkk ci waaye bi ñu seetloo gis nañ ne ndeysaan ñi ñuy interpellé yëpp jigéen ñi la ñuy gën a interpellé ndoy baan ndax ñu ngi lay wax ni la yaa yor foyer bi ñu ngi lay wax ni la yaa yor xale yi ñu muñ te saa su ne daal mbir mi ñun la woo kon nag gannaaw ñun la woo dañuy ñaan yàlla suñu mbokk jigéen yi tam yàlla def macha allah ñu def topp dégg topp ci ci lu baax rek mhm. ndax lu baax ne naa dañu koy cultiver mhm. léeg saay di nga mel ni soxna Eva Tra nga ni li ñuy wax newul ci man mhm. mën nga wax dëgg newul ci yow waaye bu newul itam ci yow da fexe mu doo nekk ci yow nit lu baax nga tricher ko wala nga toppandoo ko amul gàcce li gën a bon kay mooy nga xool lu bon di ko toppandoo yal nañ ci yàlla musal moo tax waxtaan bu ngeen munti gis ak fu ngeen ko mën a déggee rek mbokk yi na ngeen li ca gën a rafet ngeen jàpp ko waaye am na ñoo xam ne duñu yàq jëkkër yoo xam ne sëyloowu ñu benn jeeg am na fi da ngay jël nit mu nekk xale ngeen di ànd ngeen di ànd ngeen di ànd ni ngeen di gën a àndee ndoy baan boo xoolee góor buy ànd ak yow lu lu ngeen di gën a jëm kanam yow ngay magal mhm. waaye boo amulee ndimbalu suñu borom moom du magal mhm. te am na dans l'esprit de ces hommes yi nga xam ni mhm. ñoom pour ñoom ba tey ay xale lañu seen ay réalité du bokk parce que yow da ngay xalaat famille da ngay xalaat xale yi dangay xalaat avenir mais bu la yàlla defee nag léegi saay nga tase itam ak góor gu safaanu wax dëgg yàlla ànd ba du yomb. Mhm. du yomb ndax nee ñu nit mën naa am cinquante ans tey dundee xelu 10 ans. Mhm. dafay dee am dafay dee am. ak jigéen yi nga xam ne itam dañuy tombeek jëkkër ju baax ñu mel ni danoo beew xam nga dañuy wax wolof mooy wax lingeer dina ci dikk léegi nee na euh, wolofay wax ne ku regg démb neex a bokkal tey. Mhm. waaye dafa am ñoo xam ne ba ba ba ni ko bàmbaree waxee balaa xara dugg segee duñu duñu suur. noonu la ñuy mel seen jikko la loo leen defal ci teranga bu ëllëgee mu mel ni mësuloo leen defal teranga ba nga xam ne yow personnalité kooku da nga ciy da nga ciy jaaxle doy baan dina ko waral yi danoo bare de. ko waral yi dafa bare xam naa da ngay ne sarax dem ci njëkkee yeeg goro yi. <laughs> non non non c'est dafa am na koo xam ne doy baan ma ah. dolli la. nee na jëkkëram ma nga tugal waaye yaayu jëkkëram waroon jàpp ci sëy bi moo jàpp ni fii. sëy bi du fi baaxee. Mhm. waaw kooku dama koy kalaam mami. yàgg naa laa wax ni la euh, mairie ñoo lay takkal jabar ñoo koy tas. est-ce que. ñoo noonu ñoom ñoo naan la demal takk jabar mat euh, takk jabar ñoo koy tas. Ah! ñoo lay ñoo lay may seen doomu càmmañ yow ku góor gi <laughs> euh, sa doomu bañ bàjjen wala sa doomu ndijaay. waaw pare ñoom ñoo koy tas. Ah, comme xaw ma kan laa doon waxtaanal démb xaw ma fii la la ko la waa ji wax. nee na nee na waa ji dañu ko dañu ko yaay. liggéey naa ba am naa as mm. utal ma ku la doy mm. defe naa loolu ko wax ma mi uh-huh. waaw utal ma ku la doy nga takkal ma ko mm. maire bi wut ku ko doy maire bee wuti mbëgg bëggante ji wut ko mu nopp ku ko doy indi ko uh-huh. waa ji tabaxal euh, do do jabar ji euh, appartement et tout mm-hmm. jënd lalu deux millions et quelques mm-hmm. meuble néeg bi ba mu rafet mm-hmm. maire bi daal ne ni ko du ko dal du ci dal lu tax nga jëndal sa sa soxna lal bu muy jar ay ay millions. te man defaloo ma ko. te maire bi ci boppam moo takki ndaw si moo dem nobante ji indi doomam. donc maire yi ci boppam il faut am na ci du ñëpp nag il faut di wujjanteeg euh, euh, seen seen seen seen seen jabaru doom yi. parce que ñoom seen wàllu wëy na. démb tamit jot naa benn femme boo xam ne ndeysaan femme bu baax. Euh, nee na ma nee na comme li ngeen wax li nga wax rek rang rang yi bokkul te nga mën nga judd ci ci alal. dëgg la sa nga fekk sa papa am am alal am lépp nga juddoo ci étage am lépp dëgg la di far seen kër am piscine nag tout mhm. am góor gu la bëgg goo xam ni amul sax pentre bu mu la dugal wallaay ndeysaan ndaw sa nag loolu loo dund nee na kër ga mu wàcc sëyi fa ci guddi ga mu guddi ga mu fa reere waaye ba mu sëyee ba ci suba ga reer ba mu reer cere ja rek tiital na ko cere ja rek ba mu ko lekk ba mu ko sexee da koo yàbbi kër ga mu sëyi woon <laughs> nee na avant muy am laal rek problème la eh. avant muy am néeg problème la ah pour mu am dépense dañ koy làqarte mm. léeg du duñ añee duñ reer te kër papaam ak yaayam xoola ñëpp fa la ñuy lekke si maanaam famille bu bu bu yor ci la ci la jógee dem mhm. dali ci benn famille bu pauvre mhm. heure bu indee ay problème mhm. ci amee papaam euh, su ko papaam yaa jëkkër ji boolee ak ak papaam ba ñu coow a pare day moom ci boppam day jàpp papa ji da koy jàpp dóor ko ba ñu bëgg a dee ni ko sëy dama laa sëyloo dàqaat ko mu dem nee na ñu ñuy dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem ba fi mu nii moom sëy na fa 30 ans yi quelque mi ngi ci këram di sëy ab goroom a ngi ci biir kër gi jabaru doomam mais jabaru nee na moom dafa jàppe jabaru doomam ji comme doom bi mu waxee man ba pare jabaru doom ji woo ma téléphone ni ma sama yaayu jëkkër ngi nii toog li mu la doon wax dama fekkoon ma génn mais bi ma ñëwee mun ma yow la doon woo dama ne ko jëndal ma crédit ma woo ma woo ma woo ndoy baan dëggal li dëggal li nga wax wala lu amul seede neexul su ma feebaree kenn du woo sama yaay waaw su ma amee dara kenn du wooy sama yaay gëj naa koo gis bu yàgg comme li nga doon wax comme li nga li nga doon wax li nga doon wax ci ci ci ci bambara yi. waaw euh, seen yaay yi seen yaayu seen yaay yaayu. sama sama goro mooy sama yaay. voilà ma naqadi moom laa koy njëkk ku jigéen ki day mm. ruus a dem sax. ci ci ci kër kër kër kër kër do fa doom ji sëy. c'est parce que yaa day bañ na faa dem doom ji di bew. waaw di di di maanaam. mu soppeeku ca gannaawam ah, ñu ne ah. nday jee fi jóge moo tax mu soppeeku. donc yooyu moom ndaw si expliqué ma noonu nee na ma sama yaay jëkkër mooy sama lépp mm-hmm. ma feebaree moo may faj mm. su ma waree liggéeyi moom mooy dem marché ànd ak jànq bi togg li togg mm-hmm. maa moom ñoo bokk kër gi mm-hmm. xam nga léegi saa yi ma war a def dara sax moom mu ñëw jiitu ma ko def ci maanaam daf maa jël ma comme doomam bu nekk ci biir kër gi mm-hmm. eh, te genre mère yooyu la wër dëgg la jigéen gu baax wala yaay ju baax wala sœur bu baax da ngay jàppale sa frère ci sëyam dëgg la même su fekkee sa jabaru frère bi dafa dëng sax jéem koo jubban ci ci ndànk ndànk ndànk te ñuy nangu les différences soxna mami ñun itam ñu ngi lay laaj maa nga ca wala awar antenne nga ñuy nga ñuy jël. non non ca moo ñu jiitu la tàmbali. maa nga ca ma ngay ma ngay na yàlla saafara ko ma ngay ma sori. ma ngay sore. yal yàlla def ci waaye am na lu bari lu ca laxasoo. lu ndaw sa am ca laxasoo lu ndaw sa mëntoon soppe yi tiitoon foog ne doo dikk sax. ah déedéet man leen maa ko def ah. nga ne xam yow boo teewee damay ñëw ma la. <laughs> bisimilah Diop bii nga def nii daf may faj. mbaa xuxal na la wax na. xuxal xam nga loo def nii ba ma naa fi jaaraat de. xam nga loo def nii li nga def nii xam nga nu mu tudd ah. xuxal jeek xuuxal jéeg <laughs> jéeg bu bon te soxor xol bay añ añi da nga koy xuuxalee ak bismillah yow itam moom xuuxal ndaanaan la def tey xam nga lu tax waaw gis nga nit ki day bëgg boppam dëgg gis nga nii nga def nii waaw boo ko defee génn góor du la këll këllee dëgg ndax danaan ndaw gaaw a jar bu ko defee mu yëkkati waat la ca kaw dëgg la waaye boo bàyyindi ko mu ne ndaw yeex a jar nigal ma teg ko fee ci poubelle ba jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi tey nag xam ngeen ne nuyoo bi foofu la nu koy yemale ndax danoo door waxtaan wi ba noppi daal di ñëw rek xuus si li ñu wax Eva maa ngi lay nuyuwaat di nuyuwaat doy lu bare bare waaye nag eh, yéen a ngi fu am solo waaw xam nga man dama bëgg bambara yi ñu jàngal ñu seen jikko ci côté bi ngeen di waxee yéen. mooy que ki sëy si ci biir kër gi. yow goro bi yaay yaayam. dëgg la mais loolu li ko daan indi mooy bu njëkk da nga daan takke jee fu nga war a takke jee jabar ji ñëw wàcc ci sa kër sa néegu yaay. danga daan gis ñu daan takk xale mhm. moo tax ay mariage précoce ak yooyu daaw ñu ko woon wax bu jabar ji ñëwee wàcc ci sa yaay sa yaay moo koy jàngal naka la ñuy sëyee moo koy jàngal naka ngay defee moo koy jàngal naka ngay waxee mhm. man mos naa dégg kuñ ne ma daanaka xuloo naa ak boroom këram génnee biir kër borom këram dem kër yaay borom këram toog fa at xam nga ne ko fayul de <laughs> wallaay ndeysaan ndax moom fa mu dem foofu fa la dëkk dëgg la terewul ba wax jëli jënti dafa dellu siwaat kon mag ñi dafa am lu ñu ñu daan jàngal mhm. mais xam nga ba tey goro bi nga xamante ne comme li ndooy di wax goro bi nga xam ne sa doom dalaa jiitu xam sa jikko mhm. ne la demal takkal ma ki ki la doy mhm. nga dem takk ki la doy ab lal tax yow nga bëgg a génne sa goro nangu lal ba nangu armoire ba dóoral ko mat laa mu di ca tëdd mhm. waaye xam nga xale yi tey moytu leen ndax dañoo ami feem xale ba ndeke boobu moom lijjanti nay kayitam ba ñetti fan la tëdd ca mat laa ba dem fekki jëkkëram ca fa mu ne meer ba di daanuy gàngari lu ko fi jar ci kaw ku sëy rek waaw mu dem fekk jëkkëram muy crise da ko doon siis lal doon siis lal bi nangu lal beeg armoire beeg coiffeuse bi lalal ko matelas mu di ci tëdd ñetti fan la tëdd ci laa bi dem fekk jëkkëram xanaa kon meer ba moom lal ba mu doon xëccoo desee na ko am na ci maire yoo xamante ne li ndooyu di wax dañoo bëgg gone yi fay nen yu ñu tojul seen problème mooy man ba may sëy ak bàyyi borom kër gi dama daan rooti. dëgg la jamonoy root nga tombeel. wallaay dëgg la kii jamonoy biis mu xel li la tombeel. nekk sa jamono nekkatuñ sax ci robinet yi am caabi nga xam ne da ngay pare li leen démonté. dëgg léegi da ngay bës bouton ndox ñëw nga bësaat bouton mu tëj. wax nga dëgg la ñu toll. nit ki da ngay toll da jamono ji nga toll ji sa morom toll nga yéene ko ko ku nekk ak sa dëgg la gis nga ñun yi ñuy dund nii ay micro-ondes ak yeneen suñu doom yi dinañ ñëw dem ba jamono ñoom dañuy toog seen salon ne shawarma shawarma ñëw maa fee maa fee ñëw. yàlla mënoon na bàyyi ba boobu jamono mu indi maa fee maa fee ñëw at su boobaa ñun ñi ci toll ñi nga xam ne romboon nañ fii. bu ñu gëmul yàlla dañuy xeeb suñu jamono di xool suñu goro ya fa ñu toll. c'est vrai mais li ngeen wax léegi tamit goro bi nga xam ne moo uuf ay kiwam xanaa xamoo ne Eva toll ci ngeegu dundu métit baax na <coughs> day tax bu ëllëgee bu keneen ñëwee nga xam ne nga koy téye. Mm. man damay wax ma ne xam nga kan la ndeyam liggéey ki nar a ñëw sa yëg sama doom bu góor. yow mii sa bos. man mii toog ah ñun tam déposé nañu ñoom ñoom soxna Roqeetu déposé. xam nga lu tax waaw dinaa ko tam-tamal ba mu yaakaar ne àdduna ci man la yam mooy dëgg de parce que man la ma dund bëgguma moom mu dund ko la sama morom ma gis mu di ko dund bëgguma mu dund ko mais samay doom yu jigéen itam bëgg naa leen a jàngal lan mooy sëy ba fu ñu sëyi fu nekk dinañ xam lan mooy sëy donc suñu waxtaan bi su jàllee na yaay ci boppam mm-hmm. toogaat waxtaanee waat seeni sëy bu baax démb dama dégg dégg dégg déggati ba samay nopp fees xale jigéen yoo xamante ne nee nañ ma ñoom dañu tukki mais bi ñuy tukki ay ndaw lañu seen yaay jàngaluñ leen sëy fekkuñu fa goro fekkuñu fa leneen ci internet bi la ñuy jàngee sëy buñ ci amee sax nañ sant yàlla ndax jamono gënoon naa compliqué mhm. léegi xam nga dafay mel ni wàlli cuisine ba tey mhm. pour waxtaan ak sunu doom yeeg sunu mhm. ay rakk wàlli cuisine ku ci mënul cuisiner dala neex ndax cuisine grand-mère déplacé wu na ñu ngi ci cuisine facette euh, facile tey ku ci mel ni laa jàkk laa lingeer groupe am la am boo xam ne ñoom loolu mooy seen yëf dañuy jàngalante togg dañuy wecci maanaam internet bi itam moo tax euh, lingeer Jóob am na loo xam ne daf nu koy indil. côté yu baax yi daal luñ ci jàpp doyul. côté bu baax baax fa ëpp côté bu bon bi mais xam nga boo ko fa bëggee bàyyi. bëgg jël sab sëy teg ko ne yow sa yaay jàngalu la togg jàngalu la bale jàngalu la raxas waa yow nga ñëw bëgg a xaritoog bi bëgg a ordinateur bi ci kër gi dëgg la foo toll yaa ngi ci whatsapp bi yaa ngi ci facebook bi te yow da ngay wéet mm. ña ngay waxal dañoo wéet amuñum xëy bis bu ñu ko amee déposé la fi dem xëy bu ñu wàccee ñëwaat wax ak yow dëgg la yow xam mais nag euh, Eva ba tey naam Jóob toggi tubaab yi ba tey dafa xaw a wuute tuuti ak suñu togg yi dëgg da ngay nekk sa kër sa jëkkër namm ceebu jën bu ànd ak Penda Mbay mm-hmm. kii ya di di doxantu ca kaw di sew sewaan yi namm maafe namm leneen yooyu bu fekkente ne yow sa yaay daf la seetaan jàpp ne njàngim école mi wàcc dangalub jiin mooy àdduna ba jàngalu la ko xale bu jigéen ba day dem marché sëyi goro ba nekk wengare comme man xëy rek dàq jànq bi ci kër gi ne keneen ki kaay fóotal ma ne ko tey suppukaan laa bëgg añee mu yor téléphone ba allo maman suppukaan kànja nuñ koy toggee dugg marché mu ne ko da ngay jënd kànji allo maman bu ma jëndee kànji ba pare lu may def mu ne ko da jënd tiir dañ la wax rek nga bisimila fii Eva Tra bugg fi ree bay jooy non man ni ñuy dimbali de non ni mu toggee suppu kànji bi laa la eggale de allo uh, bi nu ma koy toggee ñëw ba ci kër gi tim gaz bi allo maman lan laa ci war a def yaay ji di ko di ko expliquer ni mu ko ci defee <laughs> bi mu toggee suppu kànji ba sef ko ci ñàkk tag ngi rendez-vous à mbaa la def ndox mi ca suuf kànja yee ca kaw mangook mami Linguère jërëjëf waaye j'embrasse mon Youssou gros bisous il paraît que tu suis cette émission ah ñu ngi lay nuyu doomi Dramane gu jàmm la. sama beau-frère bi gaañu ah, woon na ko yàlla xaare àjjana ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm. waa France yi tam sunu xel dafay dem ci la frère Dramane gu jàmm ñu ngi koy nuyu xam nañ ne yéen a ngi nuyu seetaan bu baax a baax waaye tamit jël ki ci ligne bi ni ko mbokk mi bisimilah suñu premier téléspectateur. allo. allo salaamaaleykum. naam sama xarit. maa ngi fi. ça yaa ci jàmm. bëgg nekk ci jàmm rek incha allah nu bokk ko ñu ñëpp. maa ngi lay fay jekk tagal. <laughs> mami daf ma neex nag. macha allah ndax li muy ibbee jërëjëf. ndeysaan oh, dem na. may ko ci jërëjëfe Cheikhul Khadim sama yaakaar yi tey ak ëllëg kese macha allah gis nga Cissé Cissé mu bon mi ci kër gi nee na ma sa maam de xanaa mag nen son Mandela rek la mën a def waaye ëpp koy jaloore ak waa ji toog ndoy baan ñaanal na sama maam ba taay waaye teewul maama ma dem sant yàlla sant yàlla ndeysaan <laughs> ndoy baan li ñu indi yëpp am na solo mhm. waaye di leen fàttali rek mbokk yi ñu ngi ci wax dëgg yàlla ñu ngi ci waxtaane mariage te mariage daal di mbir moo xam ne bu ñu ko xeeb ndax bu nu xëyee lu ñuy njëkk lijjante ci sunu àdduna bokk na ci loolu. Oh. balaa ngaa dem bureau ba bu la yàlla defee góor di la denc. wax dëgg yàlla sa sëy ngay njëkk lijjanti boo dee soxnaw jàmbur itam nekk ci loxoom yow ci sa bopp moom ngay njëkk lijjanti lijjanti njaboot gi kon loolu moo jiitu moo jiitu booy xool ndoy bal moo jiitu la ñuy dem defi ci dëkk bi oh, donte ñenn ñi dañ lay wax ne la carrière bi jiitu daal mooy la nga amal sa bopp la nga mënal sa bopp waaye tam sëy itam dina indi épanouissement bu jaaree na ñu bëgg mu jaare ko allo ah da ngay jël ki ci liñ bi waaleykum salaam waaleykum salaam waaw na kii baax na baax sama yaay. yaa wuyu. salaamaaleykum. salaam. sëñ bi na def. ñu ngi sant bu bien. jàmm rek alhamdulilah. mbaa nañ ci jàmm. jàmm rek alhamdulilah. alhamdulilah. dem bi dama woote ba sonn nu dëgg la. ma ne woon dinaa woote tey. waaw. ma it ma joxe ci sama xalaat. dëgg la. ndax. société bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. <laughs> ah olof njaay def ne góor baax na jigéen baax na. mais ñaari nit buñ dee ànd foog ñuy muñalante. dëgg la. Ah, góor dina tooñ jigéen dina tooñ. ndax duñ jël lépp duñ sëf ko góor ñi. góor ñi am na ñu ñu mel mais jigéen ñu ñu mel. dëgg la. waaye nag yow boo dee sëy ak sa jëkkër. ah sama jëkkër ji may sëyal maa ko gën a jëm kaw. Uh-huh. oyofoo. Uh-huh. la nga bëgg lépp mën na ko am. dëgg la. jigéen buy sëy day oyof. Uh-huh. dëgg la. doon mbaxana. na mag ñi daan sëy bi di ko sëy parce que jamono changé wul nit ñoo changé. ah kay. yow bu fekkente ne da ngaa du jëkkër ngeen am ngeen toll. xoolal mag mu baax. waxtaan ak moom. na ko sama jëkkër nii naa nga ma ci naa nga wala nga xool mag moo xam ne ab sëykat la nga toog waxtaan ak moom bu baax mu di la gindi bu baax bu la dee gindi mm. ngay jaar ci yoon moo nga war a jaar mm-hmm. man de duma nekk sama jëkkër mm. ak sama doom rek ci mm-hmm. di xuloog sama jëkkër xuloo bay yàgg man xuloo bu may xuloog sama jëkkër bu yàggee ci man la mm-hmm. ndax dinaa seet façon boo xam ne bu ma ko defee jubóog yow ma nekk ak yow bu baax jigéen day ñàkk jom dëgg la ñàkk jom ba mu sës mhm. bul bañ ko la bu mag bul bañ ko la xas bul bañ ko la saaga mhm. am na foo xam ne boo fa yeggee léegi juboo dina am mhm. wallaay waaye boo toogee fa nga toog ne bu ma laalul lu ma laal soo xoolu man du ma wax ak moom boo sañ si woon ba mel ni rako taxit te boole woo ci la ca war a ànd moom zéro yi benn meer mos na ma ne am na ndaw soo xam ne si jëkkëram daf ko abandonné woon da ko jëkkëram avant ba ne nekk wu jëm ci biir kër gi ndaw bu jeex tàkk maire bi jaay gerte jaaf nee na ah mu ne mu daal koy wax expliqué ko mu ko expliqué mu ne ko man da leen laa lay digal mu ne ah mu ne ko da ngay def léegi man guddi gu jot fa may jaayee gerte jaaf dinaa jël ci këyit bi xool ci orange indil la guddi bu jot meen bi defal ko loolu su bu ndaw si dee tëdd jël mbuus orange beeg mbuus bi bi teg ci buntu sa buntu néegam mhm. su góor gi génnee di julli fajar gis fa cornet ba daan ne man daal cornet bii li koy indi sama kër gi dinaa xam lan la mhm. guddi jot ndaw si daal di dugg ci néegam góor gi fëgg mu ubbil ko mu daal di dugg nekk ñoo fekk ko ci biir néeg bi ah ba mu ñëwee te la ju am mhm. kon nag sooy wax ak mag ñi doo juum de doo jum waaye nag boo ne damay téye fu may téye rafet naa. <laughs> waa daa fiir naa ci nangam. góor mhm, mhm. dañ koy toppatoo di ko di ko neexal. dëgg la. boo bëggee mhm. allah na ñàkk jom. façon bu ne na ko defal ci kaw. boo ma jànnee ma jël boo ma saagaa ma jël boo ma toroxalee ma jël. am naa xam ne mu fexe yow. lu mu metti metti metti di nga wàcc. ndeysaan wasalaam. jërëjëf waaye rafet na yàbb na yàlla defal ko jàmm moo tax Kumba Gawlo nee na na kuul <laughs> bu yëf yëngoo nanga kuul boo jaaxlee na nga kuul bu bor yi baree na nga kuul bu jëkkër defee itam kuulal rek. Mhm. ah faw kuul lay xarit bi nekk te mi ngi fi. kuulu ku ah. ku kuul. naa sa groupe dugg naa dugg naa. kuulul ku kuul kuul jëlee la fa. ah lii. Ah, ah, macha allah jox la bu mat de. àdduna daal teey da caa baax. da cee baax bu baax a baax. maire ay expérience baax na teey baax na. ay professeur la ñu maire yi. dëgg la ñu dara nag. maire yi nga gis ci kër yi. Hmm. la ngay dikk ñëw ne wërërërë nekk ci xaw ma ban altitude ñoom ña nga naan tekk rek. Hmm. boo paree ñu ne la du dara. Hmm. maanaam dañ la bëgg a wax ni. nit a ni mel góor a ni mel. macha allah dañ dañu xamaat Eva naam. am na papa yoo xam ne soo ko amee. waaw góor. am na façon papa yoo xam soo ko amee. Uh-huh. waaw doo ñemee def yenn yenn yi sa jabar. Uh-huh. waaw eh, xaw ma comprendre nga gi baan maa ngi koy nuyu bu baax. man daal dama nuyoo rek. gan góor. ma ni pa baan maa ngi koy nuyu bu baax dama nuyu. xam ne yar na rek gis na yar na sama man waxuma daal am na ci. waa léegi man mënumaa nuyu. <laughs> am na papa yoo xam ne soo ko amee. <laughs> Eh. doo mën a doo ñemee def yenn yi jigéen. doo ko ñeme. maa d'accord ak yow. parce que. dafa am nu mu mel. moom ca boppam déedéet juddu woo fekk sa papa di def loolu sa yaay. ba tey ba tey loo fekkul sa papa di ko def sa yaay waroo koo def jabaru oh, hmm. da nga maa waroo koo def sa jabar. am na noo xam a ka mel ñaare ci baayam. ci baayam la ko ah. di saaga sa yaay ah. di di def def ko sul noonu hmm. sa rak ko papa yi ci boppam may ñu jàmm sa yaay hmm. yow xale bu góor bi soo moytuwul ci loolu ci ngay tànqelu bare bari uh-huh. soo demee ut sa kër da yaakaar ne noonu moo normal dóor jigéen saaga jigéen toroxal jigéen abandonné jigéen mhm. mu loolu mooy normal mhm. parce que noonu nga juddoo comprendre nga la mais tey soo fekkee da nga juddu fekk sa papa respecté sa yaay mm. teg ko palaasam di ko toppatoo waaw suñ la ku la may jabar yow du paa boobu ku may doom bu góor soxnaa moom moom moom moom mu yor ko mhm. mm-hmm. c'est ça c'est ça le problème mais beneen bi mooy wor gi nga xam ni moom moo am ci ci biir sa yi wor góor ñaa ngi wor jigéen ñaa ngi wor oh. fii ci réew mi démb de bi ma ci dégg ndoy baan dogguma la mm-hmm. Mm-hmm. benn waay nee na mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax faxa fexe naa ba sonn pour mu teew fi dikku fi waaye nee nañu li may wax dafa am ay seede de nee na moom dafa tiit ma ne ko waa bàyyi lu la tiital mu ne ma man dama yor sibeur waaye li may gis fii ma ne ko lan la mu ne dafa am ñoo xam ne moo xam fu seen jëkkër féete bu nit nag foog ne itam jabaram dafa mel noonu déedéet dañuy waxtaan rek ndax léegi say waxtaan naka la ko film di waxee. Mhm. réa kii bu niroo kenn amul fekk coïncidence la rek. Uh-huh. du noonu uh-huh. am na ñoo xam ne da ngay wax histoire ñu foog ne seen jabar mel na ko commencé soppi jikko déedéet waxewuñu foofu waa ji dafa yor ba café yi nee na. dafay gis ne mami li ngeen ñun jigéen ñi itam. Uh-huh. léegi saa yi dañuy jël suñu téléphone. wala ñu toog internet di waxtaan ak sunu jëkkër. suñu téléphone bopp woote. Uh-huh. téléphone bopp bi bu wootee ndoy baan nga jékki-jékki ka ngay waxanteel ci net bi te muy sa jëkkër moo xam fu mu ti féete nag ndax mën naa nekk Dakar du bitim uh-huh. réew rek. Uh-huh. nga daal di koy wax ni ko aloo allo allo déggatuma la réseau bi dafa yàqu. nee na même jigéen boobu lay gis mu génn ca biti nee na mu topp la nànk. nee na nga naan aloo oui chérie nangam. waaw maa ngi ñëw waaw waaw ah d'accord dafa am fu ma nekkoon je te tout suite. nee na maanaam ñun jigéen ñi itam ñooy naxee noonu góor yi di zigzag. doy baal yëf boobu tam doy na waar. c'est que dëkk bi fi mu nii. ah zig zig zig zigzag góor yombul. Uh-huh. zigzag fi tamit sa jabar yombul. su nga dëkk bi tout ça c'est dëkk dëkk bi fii nii tout ça c'est eh, eh, dëkk bi loo bëgg a lijjanti da koy lijjanti. am na ci jigéen ñoo xam ne nga àgg am na fa àggul papa non d'accord mais dama ne ak soo soo soo soo kiiyee rek lu bari di nga ko xam c'est que dañuy soo waaw soo xarañee lu baree bari di nga ko xam moo xam ci sa jabar moo xam ci sa jëkkër am na jigéen ñoo xam ne tey jii lépp appel bu seen pap jëkkër jot ñu ngi koy jot message bu seen jot ñu ngi koy jot muy whatsapp yaag imo yaag appel yi yëpp am na ci jigéen ñoo xam ne xarañ nañ xarañ goo xam ne am nañ réseau boo xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi di ko régler am na ci góor ñoo xam ni tamit la même chose. donc ak a ñàkk noppale nag ndoy baax. non non c'est non non. ak a ñàkk noppale. Eh, ñàkk na noppale mais tey ji su fekkee danga am sa soxna mu normal mu clean amul benn problème mais am na benn tëj wala nga am jëkkër boobu nga am jëkkër mu normal mu doon nit ku baax nga wóolu ko wóolu gën koo wóolu ci àdduna bi mais am na un jour benn jour benn benn tëj buy am buy déclenché loolu su ko déclenché nit rek nga il faut nga jéem a creuser. je suis d'accord voilà jéem a seet. xam nga. soo liggéeyul ci ci ci ci ci ci réseau yi téléphone yi ci dëkk bi tamit am nga ay xarit yu fay liggéey. moo xam ko góor ki am wala moo xam ko jigéen ki. c'est vrai il dëkk bi lépp la ñuy lijjanti. Mm. Euh, tey jii soo ma nee Ndoye Bane lijjantil ma xool ndax am am na ku tudd Petit kuy liggéeyee TFM parce que sama portable jabar dama faa gis numéro ku tudd Petit TFM mm. lijjantil ma ko man xaw ma ki ma woo di ma laaj daal dentiloo numéro boobu sama xarit la. dama koy daal di woo ko waaw potee nga fa caméraman la woyu la. la la <laughs> laaj tey petit petit ndooy nga jël yàlla na ko ah, jig ah, ah, laaj ma lu ci waaj a topp balaa noo jël euh, bu balaa ñoo jël ki ci ligne bi mami Linguère uh-huh. nee dafa gis moom góor yoo xam ne seen téléphone bu ndaw ca bureau ba la dëkk li may wax am na seede maag nit a taxaw mu ne bu boobaa bu dikkee ca kër ga jël portable am sàndil la ko sa kawlal lal na bu la neexee nga jël portable ba wóote dara doo ko gis nee na waaye armu crime bi ci boppam <laughs> ma nga mo looy de ma nga mu bàyyi ca bureau ba ma mi jëlal ndukki ci ligne bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ree laa ba dee démb sañ bu baax bi ñu ngi lay ziyaar la dalal ah, ñu ngi lay fay lu bare bare bismillah ndax man may doom laa quoi doom laa. dëgg la nangul nañ la ko. waaw man ngeen baal bi si tur bi ma wax tur. jéggal nañ la ko. may sama taawu papa. ndeysaan. sama papa daanaka am na ñaari jabar. Uh-huh. mais sant yàlla manqué wu dara. Uh-huh. sama papa lépp lu ñu war bu jox bu ñu koy uh-huh. manqué lu mu am moom mu ñu koy jox. ndeysaan. mais en fait man sama yaay may aaw. mais parfois baa bi am ay jafe-jafe. par exemple fay courant wala fayu xale yi. mais day toog di ko seetaan te mun na ko fay mun na ko mais toog si di di seetaan. ba ñu coupé ko man maa ngi ne ko mais doo ko fay bu ko toog. te lépp lu ñu am baa bi jox nañu ko. manqué ñu dara macha allah. waaw te man xam yaa parfois du ma sax comprendre ne kii lan moo ko dal. ak moo ko dal te man loolu man taaw daf may metti moom moo tax moom te jàngiwu sax nag daf ma perturbé j'ai que 16 ans 16 uh-huh. ans laa am seconde laay def mais affaire daf ma metti uh-huh. ma ne xam mu war parce que gis na courant nii mun na ko fayee mais te sama yaay mi ngi liggéey te mi ngi uh-huh. lu mu am sama moo ko ko jox lu mu am ah, mu nee nekk. na ko fay mën na ko defal mais day toog di ko seetaan moom mi taaw nag moo dem ba loolu di ko metti yooyu nag yu baree bari da ci am waxoon ci ku regg démb boo taseeg moom da ngay noppalu. waa xam nga sama maam daf ma ne woon ki xiifee ci biiru ndayam. Hmm. nee na alalu àdduna dootu ko taxatee suur. Hmm. mu ne waaye ki nga xamante ne ni dafa reggee ci biiru ndeyam hmm. alalu àdduna mënatu koo taxatee xiif ci àdduna. dëgg la mais nag xam nga tamit euh, Eva wax naa la ko fii keroog. gis nga boo bëggee ci dara ji dara da ngay def ci dara ji dara ngir bu dara ji paree nga mën ci am dara. dëgg fu ngor jeex baal. dëgg leen li goree la. ànd ak nit ki ci bi muy mën mu dem ba tële nga yëlëb say loxo di ko seetaan ndax ne dafa yor yeneen i jabar bokkul ci ngor bokkul ci war ma bokkul ci sutura nit ki li nga am war nga koo mën a bokk ak moom ndax nag kii raam di la bokk kooku bis bu amee limousine du la bàyyi ci arab bi nga rang rapide fukk ak juróom dëgg la ki la jox li mu mën ci bi muy am kattan mm-hmm. bis bu demee ba kattanam néew jàppale ko ndax àddina jàppalante la dëgg mais dafa am jigéen ñoo xamante ne bis boo takkee jabar ñu toog di la seetaan mm-hmm. dootuma ko defal dara ndax dafa takk jabar soo feebaree ñu ne du ma ko faj ndax dafa takk jabar soo xiifee ñu ne du ma ko jox mu lekk ndax dafa takk jabar defal li la war ndax xam nga lu tax kuy liggéey ku nekk ci sa compte ngay versé àdduna du yàgg yàgg yàgg ba sa wujju liggéeyal la luy jariñ say doom yow lay jariñ say doom yow yaa koy def kon bu lor sa njaboot alal jooy dajale te booy dee duñ la ko suulaaleel def ci lu rafet waaye li ngeen mhm. dana am nag fu may intervenir tuuti ci loolu nun mhm. dañu bëgg tolérance dañu bëgg pardon mhm. waaye xam nga góor gi nga xam ne matlewul ñu ndoy baan di waxal toujours. Euh, waxuma ci kaawu xale bi de. on mhm. compatit dëgg la la ka dal naqari nañu. ñu mhm. ngee ñaan yàlla yàlla soppi loolu. Mhm. ah yaayam gisee autrement. wallaay waaye pour ñëw ci li ngay wax. Euh, li ngeen ka nga xam ne xam na ne motlewul dem jël ay soxnaam. rangale leen. boo amee fullay def loolu ma am fullay liggéeyal samay doom ah loolu ah, waxante dëgg nag ci bu baax bëgg sëy jaadu na mm-hmm. gunge jëkkër jaadu na mm-hmm. waaye koy àndal da ngay xam fan ngeen nekk pour ngeen mën a xam fu ngeen jëm mm-hmm. waaye ku xamul fu mu ne kooku mënoo koo seet ba koy gunge mënoo ko gunge de il faut être méthodique et organisé am na ñoo xam ne kii wax na ko démb nee na am na ñoo xam ne ñoo tas seen kër dëgg yow mënoo benn jabar oh. benn bi yaa ngi koy seet oh. nga jël ñaar ba ñett léeg-léeg wax nga ko yow itam pour te dire que maa ngi leen di déglu oh. doo leen mënal sax seen la tax itam ñuy wax sëy nga dem jël ci benn ñaar ñett di nga dem ba dégg ca lu la neexul di nga dem ba ku la ca daan defal yërëm la te yàlla tax daal di téye loxo dëgg la parce que nag léeg saa yi ñun itam daf ñuy daal nga gunge nit pour mu yaxanal ndekete moom yaxanal boobu beneen soxla lay dem uti. su fekkee ne ay nit la ñu kese c'est décourageant. c'est décourageant. doy euh, xam nga xam nga da nga da dugg fu am solo. ah jëlaaleel ki ci liñ bi nga ñëw sa bopp salaamaaleykum wa bu baax bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar ak di la dalal ci sa émission wareef. waaw na defaat. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw xanaa di rafetlu waxtaan bi rek. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf. waaw kontaan bi bu baax xam nga moom daanaka. Oh. dëkk la de. waaw. yow rek la ñuy déglu. yaa ngi fu am solo yaa ngi woon fu am solo Eva xam nga man ak Ndoye Bane dañuy faral di tooñ naan hmm? kuy yuut muy te boo waccoo dee ah, te keroog keroog wàcc moom ki naanu brouillé gën a yombale Ndoye danaan ah, oh. lépp egsi xam nga tamit euh, dafa am ay ay ay xeeti ay xeeti góor ñoo xamante ne ñoo sonal seen bopp dëgg la Diop mais xam nga dépence dafay loo xamante ne jigéen léeg-léeg mu liggéey ba ba ba dee hmm. am problème ak propre famille moom parce que famille dañ naan ana li muy liggéey hmm. muy jaar fekk moom mi ngi koy def ci kër di jàppale boroom këram di suturaal boppam maa la wax lii mais xam nga natt buñ dul bind fenn da dul yomba teggi dëgg la te dafa ci am ñoo xam ne ngor da leen jiital mënuñu mm. ne sama kër dama fay def lii wala dama fay def lii dëgg la donc ñoom dañuy def rek ndax xam ne dañ ko warloo ñu di ko def allo uh-huh. waaw soxna si noo def waaw ça va na ngeen def na ngi sant bu baax a baax ñoo ngi wootee ndar waaw. Eh, yee ñooñu moom dégg naa ay école la ñu yor xaritu Kouthia yi ña nga fa. Kouthia ah, Kouthia ngi fay toj. Raam ba Ndar mais moom dafa mel ni lu mu bokk mu neex de wala. waaw. ñu ngi leen nuyu ak sa équipe. noonu la ñuy nuyoo aussi équipe bu Papa Cheikh Diallo bu baax a baax a baax. jërëjëf di nuyu Eva eh, Tra. jërëjëf Ajaratu. di leen gërëm di leen sant na. alhamdulilah yéen a ngi nuyu jàppale ci sëy. alhamdulilah. Hmm. waaw nun nag ay doomi Ndar la. nun bu njëkk bu fekkee da nga dee da ngay sëy. danga lay booleeg yaay. dëgg la dara dëgg la. wala sa bàjjan. kooku mooy yor sa cumikaay. te sëy du loo xam ne da ngay toog ba yàgg rek nga tëb dugg ci kenn. Mhm. déedéet du def loolu duñ doom dara. Mhm. kii wut si bu ñëwee. ci parents yi lay jubal. Mm-hmm. bu ñëwee wax ak ñoom même bu ngeen gisantee fenn sax yéen ñaar ngeen bëggante. Mm-hmm. da nga naan ko demal ci samay parents. Mm-hmm. yow am loo droit wax dara. ñu prépare la dañ lay yow ku jigéen ji. ndax ku fi nekk booy dugg néegu sëy rek am na ku lay booleel koo xam ne moo lay daal. même bu fekkee ni yow sa wàll sa kër li lay njëkk a jàngal dañ naan la kër gaa ngi nii. waaye yow yaa koy gérer. Mhm. te lu fi yàqu nag yow la. dëgg moo tax bu njëkk dañ daan wax ni jigéenu doomu ndar ku mu sëyal nangu sa jëkkër. Mhm. parce que poosu jëkkër doo ko doo ko bënn. Mhm. sa jëkkër lu mu am da koy bàyyee da ko koy bàyyee. say parents ñoom ñooy dindi ci seeni poos di la jox. dëgg la. ngay def di defal say goro di defal say njëkk. di defal sa jëkkër. Oh mm-hmm. ñun bu ki jotee dañuy jëndal suñu gore yi jëndal suñu jëkkër yére. Oh dañuy jënd ba jënd ay montre. Oh jënd ba jënd parfum di leen solal ba pare nag góor li koy téye si kër. mu naan man ko mooy jox ko mu lekk ba suur loolu mooy téye góor si kër. ñu bëri nag dañuy nañoo ko rek ne di def. mais góor li ngay téye si kër boo ayee soo ayewul yëpp sa jëkkër lekkam na nga koy njegenaayoo. Uh-huh. nay lekk ba suur. nga jox ko mu naan ba mànd. Uh-huh. ndax ki nga xam ne dafay daw bu amulee doole du mën a daw. ak wàññi ay wax même fasu naaru góor bii ngay yefal sa biir bi. Uh-huh. bu lay dawal dépense boo ko yefalul du la du la du la indil dépense. dëgg la. waaw mais mbaal moom dina la jox loo loo loo ko jox mu lekk rek. dégguloo li ma la wax de. waaw dama ne la même bu fekkee ne nunu fay parents. waaw mhm. dañ ciy jàpp ci sëy waaw su say parent yorul. say parents bu yow bu fekkee même say parent bu ñu yorul yow. da nga def moyen nga dem liggéeyi wala nga sàkk fexe ndax jigéenu doomu ndar ñëpp dañuy li ci ëpp ñëpp dañuy daan seen waaw c'est que c'est que c'est nag xëy na na ngi du teewi léeg-léeg saa dina am ay benn benn yoo xam ne seen doole dina néew waaw ah, c'est ça loolu mooy problème moom mënu ko bañ ndax waaye si jàngale daal la ñuy wax ndax léegi booy xool ñi gën a am xaalis ñoom ñoo gën a métti say <laughs> waaw dolli ma nga am xaalis ñoo gën a métti sëy ñoo gën a métti sëy waaw mais sama classe gi seen seen sëy tane na waaw ah man ni sama classe gi tane ndax yow tey bu fekkee ne yow wàcce yow tey ji yow Eva Tra comme sa classe bi ak classe su mami googu waaw mën nañu def bu weer deewee uh-huh. bu fekkee ni ku góor ki dafay dafay dafay joxe dépense kër gi ñoom mën nañu fay courant mën nañu fay ndox uh-huh. wàññi tuuti seen jëkkër fay hmm? uh-huh. mën nañu fay ndox fay courant bi su ko defee ku euh, fay njàngu xale yi loolu ñu fay ah? jànq bi ah, fay jànq bi ah, wàññil ko yenn frais moom bu ko defee dina mën a gàddu saako ceeb bi indi indi dawlin ji indi kër gi neex. Mm. ah parce que kër gi mun naa ma ne ko ku góor gi bu fekkee ne xolam neexul yow sa wàll bopp yow sa xol du neex kaw lal ba du neex dara du neex. moo tax daal compréhension ah? war a am. waa moo tax ñu ah. war a juboo nun daal juboo bi daal moom moom moom moo moo sabab lépp moom. d'accord moo sabab lépp. day ndeysaan waaw moo sabab lépp te ba pare nag mun naa ma ne ko nag yaa yaa fay am nag yaay joo xam ne moom mooy nekk ci suuf moom moom mooy yore ci kooku yow li nga xamul yëpp moom moo la koy xamal. dëgg la xam nga ne booy doogee dugg si sëy doo xam dara. dëgg la waaw. waaw doo xam dara il faut nga am nga jege ku la ku xam dara koo xam ne moo lay dimbali. dëgg la waaw waaye bu fekkee xale tey la seen xarit la ñuy def xarit. kookoo leen di wax te kooku xamagul sëy dara. mame ngi koy wax wallaay dëgg la. waaw noonu rek la. ñun jigéen ndar ñun dañu ko góor gu ñëw si ñun moom dangay toog moom. doo ko dégg yéen a garaawal ñoom voilà dégg naa dañoo garaaw. ñu ah xale xale lu ndaari. yii dañoo tàng jër. a bon ah ñoom ma si. Kouthia Kouthia sax ñoo ko fi wutal kenn. déet mane mane mane Kouthia sax ñoo ko fi wutal kenn déet kaay kaay xam mi ngi naan amin Kouthia dama ko denk sama rakk fële ca ca Thiès rek ñu ñu ngi ci seetu baalal nu rek baalal nu bëgg fu noppal ko rek xam nga wuy ma Ah. góor buy dem ndar ah. enseignant yi militaire yi ña fa dëkkul fonctionnaire ya fa ne daal maa ngi mooy leen xelal ni leen ku ci tiim ceebu ndar foofa ca ndar ma lekk lépp te bàyyi fa waaye soxna si te bàyyi fa roof <laughs> laaj ma laaj ma man du <laughs> boo la ñuy def ca roof ba lañ koy def ah ceebu ndar nañ moytu roof ba góor ñi nañ muy <laughs> def di la ca dëkk ba lañ koy def roof ba lañ koy def de waaw dañ koy romb maanaam dafa bëgg a wax ne doomu ndar dafa am sac non loolu la baax na seen sac beneen affaire la dëgg la déggoo ñu naan la bàyyil sa sagub doomi ndar ji ah. mag ñi dañ koy wax bàyyil sa sagub doomi ndar ji lu naa daal soo toogee ñoom ci bool mhm. dañ lay buux roof bi rek di la ko buux rek xam nga doomu ndar dañuy day sagu sagu ba même bu toggee soom bi danaan la gosi laa defar da koy jox beneen tur pour rafetal tur bi ba nga xamante ne yow doo xalaat sax ne far soom bi la mais wax na dëgg parce que gis nga nag xam nga ku la gën a neex lépp say ki la gën a mën a sànn mm. rek moo la gën a neex lépp sëy ndax sëy yëpp daanaka cin luy bax la ruq ba ne nemm rek gor ñaa fa féete mais dama gis ne ndooye ngi bëggoon a am fu mu ñëw te xalaat naa fa muy ñëw fan la ki gën a neexle sëy mooy ki gën a mën a sagu waa ñu modéré ko rek gis nga jëw non sagu bi su ma koy wax bi moom lu mu xalaatee mbir rek la koy waxee mm-hmm. xam nga yenn xeetu sagu yi nax sa bopp lay mm-hmm. tax mm-hmm. boo dee daw sa réalité. Uh-huh. te sa réalité di sa réalité. Uh-huh. ngay naxee mbaay daf ñuy dal. ñun gis nga jigéen yi li ngeen. Uh-huh. léegi saa nga dikk ku la ne sama jëkkër di nangam sama jëkkër di kii leen ndeysaan sama li nga dem ba ca biir la cay dëgg dootoo ko mën a wax parce que yow. yaa ngi ndax nit ñi nax nit ñi ca njalbeen ba. nga dem nag ba am problème nga daal di ngiro. la jar wax tuuti ñu dimbali la ci dee ko wax li ngeen. gis nga li ngay wax nii soo wàccee ma décorer la xam naa parfum bi nga bëgg boo wàccee ma jox la ko. <laughs> xam nga lu waaw fekk si naa la bi ma nee sagu bi waxuma ci pour nga sagu ba xëy dee mais dama ne dangay sagal sa bopp mooy ko bëgg sa bopp fu nga fekk ngay toppatoo sa bopp li nga am nga def ko ci sa bopp yow bu baax mais bu fekkente ne sagu boobu ngay wax xam nga ñan ñoo ci gën a sonn ñi siiw ñoo ci gën a sonn ndax ñi siiw day metti lool ñu ne sama jëkkër fi cin liy bax lool ah. ngay sagu rek mm. naan cay ka ma am cay allaaji aas ma nga may teral ma nga may lii fekk sa xol baa ngi dagg di viande haché rek di dem nga xëy rek ne këndëng ñu naan ndeysaan aka neexoonub sëy ndeysaan aka ñu koo toppatoo woon ndeysaan aka ñu koo nemm nengaloon fekk ne góor gu sadik gi nga àndaloon góor gu féroce la la yàlla boolee loon ku féroce ku féroce man de féroce doon naa ko bëgg ci alal dama am yaay ji féroce <laughs> kon léegi jóge nga ci ban la woon. ca tànk non avant wengare la woon après Sadik léegi maa ngi ci féroce. yaa ngi ci féroce yàlla ñuy féroce yàlla ñuy féroce ci jàmm am jikko faaris. non mais dafa am ngay muñ rek. di sagu rek. xanaa xamoon ne ñu siiw ñi ci dëkk bi fi mu toll ni ñu ci ëpp seen xol dagg na ba pare dañ koy demaale rek ndax ruus nañ ñu dégg ne tas nañ. wee Diouf nee na nga ni ko allo. vie bul dugg samay wax salaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna su baax si maa ngi lay nuyu te lay maa ngi lay ziar soxna si ni ngeen def. maa ngi lay delloo ziar lu bari. man Ndoye Bane moom laa bëggoon waxal tuuti. bëgg ngaa wax ak xale bu baax waaye. <laughs> dégg waaw Ndoye naka nga def. ñu sant bu baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. jàmm alhamdulilah. Ndoye damaa bëgg nga wax ak kilifa yi nga xam ne seen doom yi dañuy fay mhm. mhm. leen. seen doom dara faale. gis nga góor balaa moo mën a téye jigéen bu geesoo gis ndeyam wala baayam. gis nga su boobaa danaan kii di am nay kilifa waaye da ngay ci sëy nekk xale bu ndaw xam loo dara sëy amul école buñ koy jàngale da ngay jéem rek di def li nga mën au contraire parents yi dañuy toog pare foog ni ñoom yaa war a ñëw di génne di leen jox saa su nekk lu ñu ne sama goro bi mën na ko am na sama goro bi mën na ko am na la borom demee ba xam ni kii gisul ndey gisul baay nu ko neex la koy traité. nu mhm. ko neex. la koy traité. Mhm. ñun nag di sëy bëgg nañu sëy torop torop torop. mais mhm. dañoo sonn ndax amuñu fu ñu wéeru wéeru wuñu fenn. suñu jëkkër yi am na ci ñoo xam ne seen jëkkër yi bëgg na leen. mais parfois dafay dind loo xam ne ñaa la délaissé muy waajoo yoon da ngay dund naqar boo xam ne doo xam sax fooy daw doo xam sax noo leen koy waxee. te bu sëy ba mettee ba nga ca mën a gis boo xoolee mbokk mi wala noonu yoon da ngay toog daal. Uh-huh. te parfois nga daj loo xam ne sa ndey ji la jur sax mosu koo daj ci sëy parfois ngay dund guddi yoo xam ne mënuloo ko sax nettali wala rus ko ko sax nettali. Uh-huh. ay dëkk la yooyu fa ñu nekk àddina. Uh-huh. ak sëy bi sëy seen doom est xam nañ ne am nañ ci bànneex wala amuñ ci bànneex. fii façon góor bu nekk am na. façon góor bu nekk am mais sëy yi métti na métti yoo xam ne li ci biir nit ñi sax ñu ngi woote ci télé ci rajo yi mais ñemewuñoo wax nii. Mm-hmm. dëgg la ñemewuñoo wax nii. dëgg la. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. maa ngi leen di gërëm nag man mii lancé bi nga nekk dañ cee kontaan trop saa Eva ñu ngi leen di gërëm di leen ziare. te xam ne lii ngeen di def nii bu leen ko xeeb xam ne yéen a ngi soulagé xol yu bari. ndeysaan. yéen a ngi soulagé xol yu bari. ñu ko tamit xale laa damay sëy mais gisuma kenn. ndeysaan bu njëkk bu ko neexee mu wér ah, bu ko neexee mu xat waaye fi ma toog moo fi jógee am nga lu tax. Mhm. ba mu méttee moom rek laa gis. Mhm. te bu ma génnee ci moom fu ma jël. te kooku yow ban tax kooku ngay am. yow dootoo dund pour yow. Mhm. da ngay dund pour du ci sa ginnaaw ñu lay bàyyi xel. waaye nag yàlla bari na sutura. ñuy muñ rek di ko jaamu yàlla te day xam dañoo gëm ni yàlla la nag ñu tax ñu ciy toog nii. yàlla la peut di rafetlu bu baax cette émission mhm. na la ko sama gars jox. baan wax ci. merci merci mais elle a xam nga sëy moom. Euh, vieux Diouf su dee takk jabar il faut mu respecter euh, su gisul maanaam su xam su ko leeree ni jabar ji muy takk. amul papa amul yaay wala papaam ak yaayam duñu ay responsable duñu ay kilifa du ko neex la lay téye mm. am na ci ay parents yoo xam ne dañoo daw seen ay responsabilité seen yu doom seen yoon nekku ci mm. su ko su la dee dóor ba nga dee seen yoon nekku ci di la seetaan mm. doom ji su amee lu ko naqari ca sëy ba am na fu mu war a dem am na jigéen ñoo xam ne tey ji suñu amee lu leen metti seen biir sëy xamuñu fu ñuy dem dëgg la parce que kañ leen bàyyeele kañ ko kañ ko bàyyeele deful rôlam oh. bàyyi su la bàyyi nit su la ba mami mami mii su ma nee bàyyi naa la sama doom diw oh. mooy dee ko seet ba ma jël mayee ji ko léegi-léegi ma daal dafay fay jàdd oh. xool sama doom ji ñu ma bàyyale nu mu toogee daal di di ko woo téléphone di waxtaan ak moom ci pet di ko yokk te naan ko ban problème nga am. di ko sëyloo kenn doo di ko sëyloo di ko conseillé ba nga xam ne problème buy am ca kër ga di nga sentir muy am ba na mu na mu amee. dëgg la nga wala sax yenn saa yi sax yow yaay tax problème du am. dëgg la léeg-léeg nga daje ko jëkkër jëkkër ji daan na ko ñoo ngi jéggulu de xam nga jigéen moom suñ la ko joxee rek jigéen matul danga leen di mhm. tane rek wax a wax woyofal sa bopp mais tey jii da ngay gis jigéen koo xam dañ ko bàyyileeg nit wala bàyyam di dund mhm. mu am problème bu mag a mag a mag mhm. papaam di ko seetaan wala papaam gaañu wala kañ ko bàyyileel di ko seetaan yaayam di ko seetaan ay ndajaayam di ko seetaan ñëpp daw seen responsabilité ma xam nga nit ñi luñ bëgg ngay ngénte woo leen ñu mu mbaay xumbaay ngay takk jabar nga woo leen jumaaje ñu gàdd seen i mbuusi jinjeer rek seen i seen i beñe yegg yëgër ñëw loolu doog lañ mën mais sëy bañ takkoon ñoom duñu ko seeni mbasin yi baax ñëw taxaw sëy ba su amee problème ñoom ñëpp ña newoon te jàkka jo koo ci woo du ñëw loolu la war a bàyyi mënoo lekk béjey jàmbur naan jiyu jàmbur naan jinjeeri jàmbur fecc ca musique ba dugub ba pare sëy ba am problème ñu woo la nga bañ nit ñi nañ bàyyi di dem mariage yu jàmbur yi waa pare su mariage bi amee problème ku leen woo ñu daw muy ndijaay yi muy bàjjen yi ñuy tante yi rakk papa yi soo moytu sax ñoom ñoo koy tas te ñoo fees dell ca mariage ba woo seeni xarit lekk ceeb ya lekk soos ya lekk ginaar ya yëpp te sëy ba suñu demee ba ca am problème ku nga bañ loolu du raison su fekkee sëy bu am problème su la woowee bu dem bu taxaw naan man maay ndijaayi diw bu taxaw naan maay papay diw bu taxaw naan maa sa papaam la ñu tudde bu taxaw naan sa naan xale bi sa yaay bañ koy maye maa ngoon ca mariage ba maa maa baasoon baas ba kilifa du ndaw te sa jëkkër su xamee ne yow mii say kilifa amuñu benn responsabilité wala say kilifa. amuñu poids amuñu pois dañ lay comme dañ lay sangar lañ lay jàppee. Mhm. très bien c'est ça. mami mhm. Linguère Diop soxna si dafa wax lu solo. Mhm. jabari borom barke yaa ngi souffrir ci réew mi. trop. ñu ngi toog rek di sëyee ki meuble di sëyee ko immeuble rek di sëyee ki fauteuil lal bu riche 4 x bu baax. ay billets tukki. ak lunettes lunettes yu toog. yooyee boo tas mais nag ñu ci ëpp seen lunette yi dañ leen a mbëkk biig ci guddi ñu amee bëla moo tax ñu lunette. man itam ku ma mbëkkoon damay takk lunette di loo fo. bu la ci kenn ndax man jëlal ki ci ligne bi dellu si ndax li ngay wax. man léeg-léeg ma dem entraînement ñu door ma ci kanam ma ñëw takki lunette di <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. su baax si maa ngi lay nuyu te lay ziar. ñu ngi leen di fay bu baax. Euh, yow rek la ñuy déglu. di rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf di wax ne thème bi moom gannaaw ñun xale lañu comme am nañ ci tuuti loo xam ne jàngat nañ ko. Mhm. dañ koy wax. yow rek la dégg déglu. Ah. ndax des fois moom xale buy sëy il faut mu den nag man joo xam ne dafa am xam-xam. Oh, dëgg la jàppale ko. Mhm. ndax am na benn mère boo xam ne sama xarit la dama doon wax maa kaay man sama jëkkër dafa takk xale bu ndaw. Mhm. mais bi xale bi ayewee comme pas bi ayewee ci bi. war a wàcc bi ci suuf ci xale bi. Uh-huh. maire bi saa nu dénk papa bi ne ko léegi feeñ zub bi borom dina ñëw jël ci xaalis bi. Uh-huh. léegi comme papa bi wàcc na ayewuñ maire bi maire bi yónni doom ji bi mu yónnee doom ji doom ji war a jël ci xaalis bi fekk ko mu toog jabar bi ndaw ji mu ñëw ne ko papa sama yaay de moo ma yónni. Uh-huh. nee na daa bëgg nga jox kii xaalis. ma yëngal kër ga de. kër ga <laughs> <laughs> papa bu ubbi génne cent mille di ko compter. naan doom bi xaar ma compter la ko mu ne ko déedéet papa sama yaay nee wóolu nga ko te moom wóolu na la. ni mu ko joxee cent ba xale ba yéegee ci kaw ci suuf ni wàcc. gone ga loolooy demam. wallaay. parce que lu ko yëkkati woon xaalis moo taxoon mu dugg ci sëy. dëgg la de. kon bu dee xaalis moo la dugal na la leen dina la génnee ba mu rafet. nit boo nekkee ci àdduna da am xel. dëgg la mais des fois dañuy tëñëx tëñëxi rek. dañuy mm-hmm. xel ñu neex taxaw. Mm-hmm. suñu yoon nekkul ci dara. Mm-hmm. am na yooyu noonu ci boppam day métti. billaay day métti. métti na lool sax. métti na trop trop. dëgg la dëgg la. moo tax des fois da ngay jënd ak ma. ñun moom lu ñu waxal ñun la dañuy d'accord. wallaay ñu parce que dañuy jàpp ne ñun suñu labat na mu ànd ak ci labat ba bu ñu takkee sëy noonu la ñuy àndee moom ci sëy mënta yem nag fekk ne boo déggee alxayri loolu mooy ñun beneen vie nga war a nekkaat parce que tey ki nga xam ne tey mu lay labat bu la may def fukki junni xëyul joxu la dépense ñàkk ko mais tey jii da lay tax nga foog ne relation boobu moo war di continuer ki nga xam ne tey jii bu xëy dina la jox dépense jigéen boo amee jëkk bu bu xëyee jox la dépense lu mu am dina ko bokk ak yi fokk lu mu ñàkk war nga koo mën a mu oh. wallaay dëgg la. waaye loolu noonu yëpp dañ koo xaar te fu mu ne suñu bët bi ci boppam la ñuy def loo xam ne amuñu ko. mënuñu ko. waaye fii ku dolliwut suux. nit dangay ngay xam nga xam ne moom nga bëgg. xool bu baax li ngay def ak loolu def. dëgg la. ndax dëkk bi doy na waar doy na waar bu métti sax. fépp dëgër. dañuy taax taax rek. sutura rek la nit di ñaan. Mhm. ak ñaan yàlla di demee ngor. Mhm. ndax lépp nee naa lépp ci ngor la rek kaddu ngor la. wallaay ndeysaan dëgg fa yàlla fépp ba sonn. Mhm. bi ku nekk bu fekkee ne bëgg nga nekk raw say morom leen lenn kasa la mooy doylu. boo amee junni xam ne ci junni bii nga yegg. dëgg la. doylul nga ko. ci leen lu ñàkk fay la. kenn du la jéebaan kenn du la wax su loo bokk. waaye boo ñàkkee doy lu ne di nga ci dugg. ba dugg ci loo warut a dugg. bu subaa nag nga mel ni seetu buñ ne faa ngi ci digg tali bi ku roobu ne xaaral ma na nit ñi doylu nag. incha allah rek fépp foo dem di nga mën a toog ci kàttanu yàlla. incha allah ñu ngi rafetlu ñu ci loolu. jërëjëf jërëjëf. waaw mbir maa ngoog. ku doyloo sa poos mu mel ni indi na lu garaaw. ku doyloo sa poos di buur gis nga yaa ngi xam nga léeg-léeg nga toog ba yàgg nga ne ñun ah ñun eh, man Eva Tra ñun ñeenteel yi mais gis nga aaw yi tamit ku leen moytuwul ñëw rek ne saraax fekk leen ci kër rek ne tey ma dajjati leen jóg leen ma toog ku la njëkk a taal may la doom te da ci am ñoo xam ne ay màggeti jinne lañ dañoo dese ay ngelaju jinne yi yu màggetam ay màggeti jinne lañ dinañu war a bëri mbir de lu ñu màgget màgget am nañ ngelaju boo xam ne bu ñu la ko dóoree nga fanaani sa kër papa te dañ naan patt di la xaar la wax maire bi moo jël xaalisam dénk ko jëkkëram jëkkëram wàcc ci suuf ay ji mu yónni doomam ne ko demal ne ko na la jox xaalis na ma jox xaalis bi mu wàññi ko ci kanamam looloo yëngal këram am na ci ñoo xamante ne seeni feem la ñu yor di la ko di la ko dóor mbaa du mbaa du duñ ca taay yi nag du ñu xeex duñu xuloo duñ ca taay dee déedéet di nga xëy dem te yow sa bopp doo xam lu la yóbbu te dañ cay set wicc amoon na benn femme boo xamante ne dafa am wujj xam nga su xëyee suba muy def legetam lay gàddu yëre boppam bu nekk ci biir lay jël laxas ko ba mu jekk mu def ci mbuusam jëkkër ji dafa yor place bu mag ca marché ba bu jógee marché teg ko ca catu leget gi bu ñu daan ne billaay man daal sama nijaay mii nag sonal na ma nag man chaque jour rek ma jaar ca tailleur ba rek mu jox moom ñaw man yére yi fu ma koy sole mu wàcc ñëw ci kër gi rek jabar ji ràcc-ràcc ko ñetti tàccu ne ko ki ngay xottil chaque jour muy sañ xanaa man damaa gën jëkkër ji ne ko xottilu ma ko coow la bari jëkkër ji ne ko léegi bu dee loolu la kon jëlal say bagage sa dem man taluma coow mm-hmm. nit dafay dal tey jàngat di xool xam nga la Youssou wayoon ne bul dégg daa diggam bul gis rek ne lii la nit dafa war a jàng am jàng-jàng bu leer di xool di gësu di xalaat ba xam lii ñëw nii lan moo ko indi damay damay dellu siwaat fi ma nekkoon Eva hmm. jabari borom barke yi dee nañ tey dox Mm. xam nga dëkk bi bu sa poos diisee maanaam mën ngaa dee ba noppi nekk di dox di soli coquette ah am na ñoo xam ne fekk dangaa ngaa dee néeg bu gàtt bee nee nga xam ne doo fay dox yow déglu gisoo ma de xanaa néeg man ma gis la mais dañ ma bàyyi <laughs> néeg yu gàtt nga xam ne doo fay ndox doo fay courant mm. am na ñoo xam ne seen néeg pare na peinture ba rek la ñuy xaar subhanallah mais seet bu baax li ma la wax yaa ma koy gën a xam mm. am na ci jeeg joo xam ne dinañ jóg ñëw ci yow di ñawlu si fay ñu ñaw bi ndax amuñu xel mu dal muñ ko solee ah. xam nga lu ñu bëgg nu gi yow toog nga dalal leen ñu yebbeeku li ñu yanu. ça peut arriver. am na ci ñoo xam ne danga naan leen salaamaaleykum ñu tegal la seen disque 80 ba tey. boo xamul àdduna nga ni danoo bare wax. boo xamul àdduna nga ne aka bari wax. ak mën a weer jëkkëram boobu mën a wax. bariwul wax dafa mënta wax ak ñëpp te yow taamu na la ba jàpp ne moo tax gis nga bu nit ñëwatee nga gis ko muy solu. di def yenn yi su ubbeeg yow débat rek. déglu ko te bu ko wàññi bul ne aka bari wax. dëgg la bul borom barke yi aka ñoo mën a tiitam. Mhm. ndax Eva dafa am lu nekk ci sëy jigéen ñëpp dañoo bëgg ku leen neng nengal ñamañe dafa bëgg ko neng nengal nakanti ñamañe ñamañe euh, lan la fruit la wala lum mu doon déedéet jeeg bi ci kër gi dafa bëgg ko neng mooy ñamañe waa moom jeeg bi mooy ñamañe waa dafa bëgg ko neng nengal ah. bëgg na koy waxtaan ak moom mm. bëgg na loxo bu muy ngeganaayoo dëgg la bëgg na ku muy diisool ay waxam dëgg la yow nag bu fekkente ne yow góor gi taloo toog ndax danga ne man borom barke laa mais attends eh bien man tabaxal naa la kër gu rëy ah mais man meubleel naa la ah. maa ngi lay jox dépense deux ah. yu nekk ma wàccee la benn 4 x bu bees ah. da dem da ngay dem tukki ah. mais da ngay tukki ah mais say doom yóbbu naa leen bitim réew ñu jàngi ah léegi saa ñu ne la kër ga nga bokk amul lii ah. mais xoolal bu la naqaree nga dellu sa kër baay ah boo demee ci barag ngay fanaan euh. yàlla nag bu mu yoreel sa baay dépense mbala mu yóbbu sa baay màkka wala sa yaay màkka na la wóor ne sa buumu njaam yaa ko raw jox ko mu takk di la diri ba ci lan moo tax na jeeg ji moytu naan sama jëkkëray dog suñu buumi jaami kër sunu buumi gàcce sama jëkkër ma koy dogal. dogal ko sa bopp seen waa kër bu leen wutal ay buumi gàcce ba sa jëkkër di la ko dogal. dafa am ku ma wax dafa am ma wax démb la am solo je valide. na ma sa jëkkër bu la tëggaleeb lam ma ne ko waa mu ne ma loxo ba cay ànd tëggalal ko sa bopp bu nee gees na jàkk ca lam ba nga ne gees jàkk ca jaaro. dëgg la mu wóor ko ne la ko mottali yaa ko def. dëgg la mm-hmm. donte nag wax dëgg yàlla jigéen itam la koy neex bokk na ci borom këram di ko jox mooy suñu sag di quand on est femme itam lingeer da dangay bëgg am jëkkër ju am njëriñ lool ndeysaan mu lay jox waaye bi ñu demee ba ca kanam ba miin àdduna mm-hmm. ndeke ndekete am njëriñu jëkkër mooy bu lay defal ndekete am njëriñu jëkkër mooy bi nga xam ne boo solee sagar mu ne la mais comment uh-huh. soxna si yow li nga sol rafet na ndekete mooy ki nga xam ne vraiment boo defee bêtise sax boo sàgganee dana la woo nànk uh-huh. ne la soxna si ni nga defee du nii uh-huh. du la jébaane du la génne ca biti waaye yooyu itam ni ñu koy waxee noonu la amee itam xeetu jabar yu safaan ah, ndax démb maa ngi waxtaan ak sama benn xarit ba tey ñun ñëpp daf ñuy dal après émission dañuy am fu ñuy toog di waxtaan Euh, waa ji nee na moom dafa jaaxle ci jigéenu tey foo leen fekk ñun ñëpp nag il paraît que dañu naan on est fatigué. Uh-huh. ñun ñii uh-huh. ba ci man. Uh-huh. toujours foo ñu fekk on est fatigué on te fatigué. nu dara sa doom nunu bee koy yor. kër ga <laughs> cuisinière bi moo lay toggal euh, gaz bee ngi fa. moyens yi am léegi ñoo gën a palpable yanu amoon yàgg na mais itam teewuñu suñu sëy yi dafa ñuy dal. ah nee naa leen fii. nee naa la émancipation bu ëpp sax ci coono la wala déggoo ma góor ñee dem marché. góor ñi ñooy mbindaan góor ñiy fóot góor ñi ñooy senelek góor ñi ñooy Sonatel yéen liggéeyu leen dara lu dul nelaw ak yeewu ku leen ni un ngeen ni ko deux te yéen defu leen dara sëyu leen defu leen dara kan ngeen seen weeyaa ngi ñuy gudd fóotu leen paase wu leen toggu leen yàqu leen mami ma xool sa bos pédicure ak manicure rek. terewuñoo fóot de déglu fóotu leen gros plan parce que ñun suñu wee. dara ngeen fóotu suñu yos yi dafa yem. ñun ñu ngi nii mi ngi nii mais terewuñoo fóot. ah mami neel nii neel nii voilà terewuñoo fóot man damay fóot ba tey. mënoo mënoo am jëkkër yoo xam ne mooy fay courant di fay ndox di la fayal jànq bu lay toggal. di fayal jànq bu lay menaçal. rends-toi agréable. voilà yow li nga waroon a liggéey ci kër gi yëpp am na ku sa jëkkër di fay mu koy def yow luy sa métier. rends-toi agréable wax naa ko. waaw ah sois sage. waaw dalal ko defal ko. c'est ça gunge ko. tey jii te ñuy moytu nag di def lépp waxi say jëkkër itam dafay baax ñu koy gunge ci àddunaam. ngay coacher sa jëkkër. di ko jàngal muy ko gis xam na dara. waaye bu amee itam jigéen ju baax bu ko gunge da caa raw. voilà loolu lépp mu doon loolu lépp mu doon defal jànq jànq mm. loolu lépp mu lay fayal. Mm. jànq yi di la ko defal soo ko arrêté woon lu waa dëkk bi di wax daa bëgg da lu muy wër di wax damaa bëgg a toroxal moom di utu lu ma jànq moom di utu lu ma moom de moom de moom de indi da wër na wër dëkk bi yàq sa der te pourtant da nga bëgg lu ko noppal lu ko kii dangay ngay jà moom sa te mu jàpp ne da nga koo ragal te pourtant donc da nga bëgg rek lu ko noppal parce que loolu la tombeel dëgg la xam nga soo ko tam yaayam ñëw ni la waa mais sama doom ji ne nee na dafa sonn utaloo ko jànq mais ma takkuma la pour wutal la jànq et puis bàyyi leen di forcer seen jëkkër yi pour que waaw da nga maa wutal utal lii par force da ma war a utal ku may fóotal damaa war a utal ku may paasal damaa war a utal bàyyi ko mu def li muy def naturellement bu ko teg pression ci dara. mais xam nañ xam nañ ne itam ñu ngi ci modernité de. d'accord uh-huh. mais bul ma ko teg bul ma wax ni ma defal ma lii. bu mu doon looy xaar loo voilà tey mi ngi mel ni tey ji ma bëgg a takk benn xale bu jigéen mun nga ne ma du ma sëyi piir man la demal sa man ma dëkk piir ma doo pour lan loolu yow yaa may wax su lay takk yaa may wax fu ma lay yóbbu fu ma dul yóbbu fa am laa lay yóbbu fa man fa mu am laa lay yóbbu waa baan li nga wax noonu dëgg la mais mooy dama lay delloo rek. ci li may wax xam nga itam jamono moo déplacé wu. moo déplacé fu mu déplacé wu jamono jamono dafa changé. wala nit ñee changé waaw déedéet ko bés bu génnee feneen kay moom masiba naaru laay voilà musul changé. waaw nit ñi ca boppam ñoo changé ba pare bëgg rek am na jigéen ñoo xam ne li ma wax noonu lañ mel dañuy bëgg jël góor jàpp bu mu takk ko fii di la diri góor gu ko nangu nag ñu diri la su suñu xamee ne am nga wërsëg da moytul ñu iré la seen kër yaay nga dëkk fa tu xam ne am nga seen yaay ñu indi la seen kër yaay am na benn kilifa goo xam ne tey jii ma nga bitim ba du liggéey ba am xaalis léegi ko mu jënd terrain tabaxal ko boppam dugal fa jabaram ak njabootam kër papay ndaw si la ne di tabax kër papay ndaw si ma takk mami léegi ma dem tabax pir wala mu terrain ndakaaru tabax ko ma dem ba kër papay mami terrain ba fa des te biir kër ga ma koy tabax ak di yëkk di leen yëkkatil étage bi kooku dañ koy bàyyi ba tabax bi ba pare ñu kàjj ko bu tabaxee ba noppi dañ ko kaj ko parce que foofu muy tabax lu mu fa am kër bàyyi jàmbur loo fay tabax doo dem wuti tabax sa kër bàyyi wala nga dem tabax foo xam ne yaa ko moom dafa am ay dafa am ay góor yoo xam ne nag ndooy jarul nga di ko meral kooku daa xaay te ñorut dégg dafa am góor dafa xaay te ñorut voilà dafa am góor ñoo xam xaay moom ci boppam ñàkk ñor la mais dafa boole xaay xaay te ñorut hmm. xoolal te boo ko gazee da nga day yokk boppam si dafa am ay góor ñoo xam ne da jigéen ñi dañ seen jabar yi dañ leen di nelawal hmm. suñuy yeewu fekk c'est trop tard xam nga tey ji bu ñu ma souvent su may wax daal da ngay da ngay da ngay reew xam nga bu njëkkoon da ngay daan dégg ñu naan kër paa diw kër paa diw léegi kër meer diw rek la ñuy wax kër meer Ndiaye kër meer Ndooy kër meer meer Seck kër meer meer kër meer Nangam rek ngay dégg léegi mais bu njëkkoon bu njëkk sa at yële ci ginnaaw kër paa diw rek ngay dégg <laughs> mais léegi kenn waxatul kër kër paa diw de gars yi suñ la jàppee ba bàyyi la jigéen ñi su la am na du ñëpp nag ay jigéen yu baax a ngi fi mais am na jigéen ñoo xam su la jàppee ba use la ba bàyyi la ba nga retraité ba toog ci sa piliane boobu ba daajale piliane ba nga toog ba comprendre di ngay toog ci biir kër gi ci ngay doog di nga xam ne yàlla julli la santaane yow sa jabar ji nga yor yaa 30 ans da la jàpp daf la ruiné après jël sa xaalis di ci commerce di ci dem Dubaï di ci dem Chine yow ñu bàyyi la utal la benn jànq bu ne ci biir kër gi mu lay defaral sëyi maire yi maire yi am ay ay soixante-dix ans dañoo war mook seen sëyi mook sëyi xale bu am dix-huit ans yama ah, sëy sëy re rek toujours j'insiste mais xam nga nag yenn yi sànq ba léegi yaa ngi wax ñu ngi lay déglu waaw uh-huh. gis nga yenn uh, nu ñu koy waxee mujjanteel mujjee uh, yenn ni ngay uh-huh. ni ngay jeexalee sa àdduna léeg saay uh-huh. mm. mi ngi dépendre ci la nga leble waaw xam nga àq bu bare itam àq <laughs> baaxul mm-hmm. góor boo gis mu ni mel am na ku mu tooñ liñ naan danga mel ni ku tooñ wàlliw mm-hmm. noonu ngay gisee jigéen tam boo xam ne bi mu demee bay jeexal àddunaam mu we bu bu wuteeg nag ndimbal mu wutee bu weesee euh, ndim ndogalu ndogalu sunu borom bu weesee ndogalu sunu borom am na yoo xam ne nit kee koy tegal boppam moo koy defal boppam da nga péché péché péché péché tooñ ay nit tooñ ay nit tooñ ay nit ba nag yàlla pour corriger la ak wan la ne moom moo fi ne bi yëf yi demee ba sore ba nga màggat mu daal di lay dugal ci loxo ki nga xam ne moom nga nekkaloon ndekete ba nga nekkeek moom ba tey dangaa nax sa bopp ñaata nit ñoo fi fase seen jabar rëccu ko ñaata jigéen a fi jóge ci say dem ndekete fa lu dal foofu sax moo gën ci ñoom ñaata góor fi bàyyi jigéen ndekete yéex na noo bàyyi jigéen bi moo tax ndooy baan mhm. tout est question de choix nee nañu ndax choix moom boo ko fafee def na nga fexe ba nga rendre ko mu baax parce que choisir nga mhm. te nag sa ëllëg yaa ngi koy def ci tey sa tey boo ko defarulee. sa ëllëg dama ko ragal. ñun ñoo war a góor gis nga euh, Eva. sa yi dafa dafa doy waar. doy waar yaa ngi romb benn góor boo xam ne au temps lu ne la daan dund ak jabaram. mais dugg ci ay mbir dugg ci ay mbir dugg ci ay mbir dem ba enlisé wu dem ba dugg ci yu kenn xamul kenn xamatul nooy attee loolu doy baal. Eva am na ci paa yoo xam ni ñi ngi seetaan wareef rek la ñuy seetaan. waaw. paay yi liñ leen di li ñuy dund jamono ji jiwuñu ko seen boor si ji jiwuñu ko seen soxna yi uh-huh. takk leen nekk fonctionnaire di ñafe ba am kër ci sàkkar kër ak Mermoz gi jël sa soxna dugal ko fa am ak moom njaboot sa soxna si yooyu doom ya sëyi ñii sëyi Canada ñii sëyi France ñii sëyi Diourbel yow maire bi ci biir kër gi allié ko mu topp la toppatoo la yow papa mi nga xam ne liggéey nga 40 ans 45 ans ba retraité du la toppatoo ay sëyi doomam yi nekk ci àll bi lay toppatoo comprendre nga. yow jànq bi ci kër gi mooy lay moo lay toppatoo. yow mère deewagoo paa bi deewagul da ngeen di sëy ba léegi nii. xam nga léegi nag looy wut ngërëmul sa sa sa ngërëmul jëkkëroo doom ngay wut wala sa ngërëmul doom wala ngërëmul kan nga wala sa ngërëmul jëkkër ngay wut te jigéen ñi ñiy sëy ak di liggéey nañ sóor benn affaire toujours ma wax ko Uh-huh. bis boo ko fi toppatoowul sa sëy ba faatu bis buñ la tëree ci jumaa ja di la ñaanal sa jëkkër la ñuy woo mu du ñu woo directeur ba uh-huh. du duñu woo président syndical syndicat ba duñu woo chinois ba ca du ñu woo naar ba ca Dubaï ñu woo ka ca Sandaga uh-huh. sa jëkkër mooy toog seede bu boobaa itam dafay def yëfi àdduna donc xam nga dafa am lu am mami yëfi àdduna mooy nga seedeel ba seedeel nit ki loo gëmul ndax xam nga bu xam nga yenn yi xel a koy mottali bu looloo teewee lu la neex ñu ne la seedeel sa jabar loo ci man lu dul waxal ko lu baax. <laughs> li ngeen li may toog fii. <laughs> foofu nag boo ma boo ma contrôle tey. Uh-huh. wax laay wax de. Uh-huh. mën na maa toog fii. Uh-huh. nit di ma seetaan ñàkk maa sopp. mën naa toog fii nit di ma seetaan lu ne mu dugal ko ci internet bi. waaye yàlla na yéex. bu ma fi jóge woon ñu ne ndeysaan. moo ne ak a baaxoon. ak a rafetoon. ndeysaan bu reetaanaan. fekk na. yow gàccee la jàpp rek eh moo tax ngay ngay seddal nit ki fekk na nit ñee teew ngay seddal uh-huh, nit ki uh-huh. moo tax il faut être vrai uh-huh. en tout chose nañu sincère ndooy baan suñu thème bi xam nga lan la sincérité. ci relation yi ngir yàlla bu ñu sincéré tout est facile. Uh-huh. tout est tout tout devient prospère léppay baax. Uh-huh. mais bu ñu ñàkkee sincérité dara du baax mbokk yi. Uh-huh. na nu defaraat sunu diggante sunu diggante nu ngi koy defar. ci amour ak sincérité amul leneen. amul leneen respect amour sincérité. ku ko def sa sa vie neex. loolu la rek. jubur gi daa bare. yàlla na yàlla musal yàlla baal nu naxante yi bare lool. na soppi lépp ku ne foyer ba nga nekk. ku nekk ci li nga nekk boo ko jàppee comme jamaa yàlla def ko jamaa boo ko jàppee ne lii benn xeeru béton la benn kayit la ah yàlla itam moom dafa am fulla ba li ñu ko ñaan rek mbokk yi moom la ñuy may oh. nanu xoolaat bu baax suñu bopp nanu xoolaat suñu relation yi nanu xoolaat suñu diggante yi oh. parce que c'est important jigéen ñi tam seen sëy yi na ngeen ko téye oh. yàlla nag dina def itam nga baax lool macha allah nekk góor gu baax yàlla may la jigéen bu safaanu bu doy waar dafay mériter réflexion dafay mériter nga toog xaar que am na ñoo xam itam jigéen dafa jafe eh, ni ñu koy waxee góor ñi noonu lañ koy waxee jigéen ñi di nga nekk jigéen nekk urul ay ni urul ay ni du fële rek de fii am na fi ndax le paradis ça se vit aussi sur terre li ngeen nañu xool daal suñu diggante en un mot l'enfer aussi l'enfer aussi que nee naa la Robert Mugabe la mu waxoon waaw waa ji dee na ñu ni ko ñu waa ji dee yàlla ni ko xoolal leen ma ko ndax amoon na jabar ñu ni waa amoon na jabar yóbbu leen ko àjjana ndax ndax déjà dund na enfer waaw <laughs> waaye day fii ah. laaj ma Eva Tra daf koy ñaan ñëpp ku ci ne la nga nekk na doon sa paradis. Ah, boo ko neexalulee wala yàqam dee bonul de laaj ma lu bon. Ah. di dee xam ne dund nga naqar ba bon. wala dund nga naqar ba dee. naa la boo xëyee suba. doy baa bu sa dara tawee neex. waaw xaritoo la ak Mimran mu yónnee la conteneur suukar nga suukar sa àdduna ba mu neex. yaa dégg ne daan plaisir ni ta koy wutal boppam. waaw mais daal nañu xam ne muy góor muy jigéen tan dafa gorewul ne bu tan gorewul bu ñuy gubbali mbaam boo koy dundee nit ki nga àndal mu lay teral ci li mu man jàppale ko ci li nga am waa Sénégal kenn gënu leen dem leen seeti Abdou Ndiaye mu defal leen rob bu mel ni 77 151 56 27 dem leen ci Abdou Ndiaye ma nga ca Ouest Foire ba suba ak Euh, Ndoye Bane jaajëf ñu ngi tàggu ñëpp rek tey wax gars yi ñuy góor góorgóorlu rek te ku nekk jox cër moom moromam respect dafa baax ci diggante ñaar ñi ciy ku ne respecté moromam ñooy ziar euh, ñi nga xam ne ñu ngi ca bitim réew bi ñu seetaan ta tata Adama Wan nekk ah. fële ca Washington DC ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak kii di Awa Basirou Ndiaye nekk fële ca ñu ngi koy ziar madame Dermiche ak euh, ki nga xam ne moom moo di Adja Aïcha Dioum ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak madame Ndiaye ma def jaay fii fii ñaan nangu naa la maa ngi lay sunu xarit Ndoye Bane ñu ngi remercier képp koo xam ne dafa toogoon di seetaan bi émission li ñu uh-huh. ci wax wax nañ ko l'essentiel a été dit wax nañu lépp kon mbokk yàlla na yàlla defal nu jàmm yàlla defal nu sutura Eva dafay remercier Bamana Couture et c'est ma façon de dire merci à Bamana Couture maa ngi remercier aussi le salon de Ndeye Ami moom itam mi nga nekk ci 648 56 Bamana Couture ñoom ña nga nekk ci 78 103 60 164 52 78 103 bu 52 Ekiboué Diouf Ekibou Papa Samba Thiam ak képp ku doon seetaan ñu ngi lay baalu àq bu baax bi la jox rendez-vous suba incha allah ba tey ci seen émission Wareef